mais noo gisee combat yi nga xamante ni jot na fee taxaw ma njëkkee ko ci Bombardier ak Balla Gaye. Bombardier Balla Gaye mag la lamb ju neex la Bombardier champion la xam nga mu ngi marqué empreinte am si lamb ji waaye tamit wax dëgg yàlla yéen bi Balla xam nga dafa nekk ndaanan dafa nekk ndaanan gu fàq tëdd loo xam ne lu jàpp moo ko mën lu mu jàpp rek moo ko mën waaw maa ngi xam ne lamb jooju noonu dina métti trop trop trop trop trop trop nag. est-ce que est-ce que bu njëkk ba na mu yombee woon gaaw est-ce que bii dina ko mel. non bee Balla Gaye entraîné wul woon dafa nekkoon si ay tolof tolof. Bombardier ñëw na indi bërëb doole ju bëri xam nga combat bi di am neex. Balla Gaye indi doole Bombardier indi doole ñoom ñaar ñu bëre waaye bëre bi xam si lu muy jeexee ci wëndeelu bët def ay business yaa ma gën a xam ay mbaskaat appui mën na ci ama ah. kan mooy def loolu. non Balla Gaye mën na bëtt Bombardier wër ko ndomba daan ko mu fàq ko mbas ko mu rëpp waaye bombardier tamit Balla Gaye bu dëgëree boppam bombardier mën na ko dóor mu daanu làmb la ndax bombardier dafa am force frappe te noonu loo demee.